mi ngi joxe dafa mel ni ba léegi concerné wu leen ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ صور لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بظفره kon ders bañ yemoon fa la ñuy fa la ñuy tàmbale xam nga mi ngi doon wax ci évolution Seydina Cheikh di wax ne ila an balaga al maratib al aliya wal maqamat samiya ma mu yegg nag ca martaba yu koweya ak maqama yu yëkkatiku ya wa wasala te mu yegg faf al muniyata ca lam doon mébét wal mushtaha ak lam soppoon wa anna ila rabbika al muntaha te alquran noon na yàlla mooy yemuwaay ba ñu ne tey wa min azimi adabihi bokk na ca tegginam yu mag ya nag moom sidna cheikh li shuhudi fadli sayyidihi ngir wane ne bég na ci ngëneel li ko yàlla may kii sangam wa mannihi ak xéewalam mooy ne annahu lamma actaraahu min al axwaali ma actaraah wa nazala bihi maqtataahu an nafsihi wa hawaah wa dahara alayhi asaru alfayadaani wa jara minhu ala almantiqi wa lisaan ma ashraqa xam naa daf ko bindee ma ashrafa ci mataab mais ma ashraqa la bihi baatinuhu min altawxidi wal irfaan fa kaana ila axiri mu ne bokk na ci li nga xamee ne cheikh màgg teggi na mag boromam ba mu ko mayee la mu ko may lii mu lay wax ci ne ne xaal yi ko gaar bañ ko gaaree te juñoon na ca ca dërs bi passé wa nazala te wàcc bi ci kaw maqtataahu la ko dagg soril ko séparé ko an nafsihi wa hawaahu ba mu séparé ak bakkanam ba ak bànneexu bakkanam ba mi ngi junj wa ama man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna jannata hiya almawa mu ne nag li ko dal ba tax bakkanam ak bànneexam tàggoog moom wa dahara alayhi te feeñ ci mbiram asarul fayadaani jiix jaamoom bëbbëg yëf ya la maanaam faydu wa jaraata daw minhu ci moom loolee mab doon fayadaan ci moom alal mantiqi wa lisaan bu waxee bu xalaatee nga xam ko ca su waxee nga xam ko ca ma ashraqa bihi baatinuhu yàlla jox ko ci loo xam ne ca la baatinam jolleeg ak leer min tawxiidi ci wéetal yàlla wal irfaani ak xam yàlla mu ne la xew boobu nag mooy fa kaana yaftatinu bihi kullu man raahu bu ko yàlla mayee loolu daf ko nattoo nag képp ku ko gis rek da nga am fitna maanaam dana la soxlaal mi ngi ñëw lima yushaahidu min talaatihi albahiya wa sanaahu ak leeram la ndax ku ko gis rek da nga gis bu ne tëll rek wala bu muree koo rek la ngay gis ci leeram nga ak zahiram bu rafet ba ci yàlla daf lay fitnaal dootoo mun a tàggoog moom te nit ñi foog ñu tàggoog moom doxi seen soxla yi jàngi jëli ji yàlla soppal seen muraadu ñam faju ji buñ feebaree nekk ci naa sootiyaat yi yoo mën ta ñàkk di te ku ko gis ci gis googu rek toog dootoo fa jóg fa kaana yaftatinu bihi kullu man ra'aahu lima yushaahidu ngir la muy seetu moom ka ko gis min talaatihi lbahiyati ca kanamam gu rafet ga wa sanaahu ak ca leeram ga fa yaaxudu bi majaamii qalbihi mu ne dafa mel ni ku ne jàkk cheikh rek cheikh dafay mel ni sa xol bi yow mi ko gis dafa am nos buñ ci def cheikh téye ko di xëcc fu mu xëcc nga topp wa aqlihi ak xolam ak xelam ma xol ba bay bëgg ak xel may xalaat wa lubbihi ak sa xelam ma gën a biire ndax ulul albaab yi beneen daraja lañ ca kaw wala yajidu te du am waa ji ko gis ci jamono yooye buddan jaas inda xitaab yi fa wax nga cheikh di wax min taaddubi ila aliyi janaabihi ku ko déglu muy wax rek foog nga yaru dem jeng ànd ak cheikh ca wàllam gu yëkkati nga ko yàlla may ila aliyi janabihi mu ne falamma axassa ba mu yëgee nag moom seydina cheikh ca martaba booba mu yeggoon bi zuhuri dalika ci feeñ ak loolu min al ixwaani ci côté mbokk yi ko bëgg ci yàlla wal asxaabi ak taalibe yi ladina hunalik ñoom ña fa nekkoon naha wa zajara wa charrada wa nafara wa gadiba gadaban shadidan ba mu gisee ne nit ñaa ngi koy commencé seetlu bay fitnawu ci moom ku yàkkamti woon toog ku ko dégg ñëw mu ne mu tere leen jàjj leen tasaare leen dàq leen mer mer mu màgg a màgg ci noonee ñu ko naayoo toppee naay ko màggalee wa tawallaat te mu dëdd anu wari si leen sharidan di aji dàngang lu ñuy wax rek mel ni déggu ko wa kaanat taatihi lwufuudu li ziyaarati wal aqsi anhu wal ifaada nee na mbooloo yu bëri dañ daan ñëw ngir siyaare ko nemmeeku ko jàpp ci moom jëriñu ci moom fa kaana yamtaniu min zalik muy bañ rek maintenant boo ko jiñ rek mu miin ko loolu nag la ca garaaw waxaguñ ko mooy waa ji su bañee feeñ bay nëbbu yooyu dana ko yóbbu sax ci njaaxum misaal am na benn wali boo xam ne dafa doon tàmbali ñëpp ndaw jëm ci kawam tam xam ne moom pareeku te bu toogee léegi pour jël nit ñi defar leen te moom defaroo ko ba pare dafay taxaw mu seet seet seet seet ijtihaad rek ba mu yàgg mu xaar ba nit ñi sangu ci benn benn xamaam public rek mu dem seet ci ñu summeeku woon rek fi ci gën a baax yére rek mu nag koy sàcc rek sol ko di daagu nag ci marché bi xam nga ko sàcc na ngay nëbbu donc xam nga kooku du sàcc ñuy seet yëre yëre yi ba ci ko illa la kii nekk ab sàcc rek la dañu koy jël toroxal ko nangu yëre mu ne mu ne bakkan bi nag al ana saabal muqaam léegi nag mu day fa nekk ci jàmm ndax ab sàcc rek la ñuy gis ci man ba ba ba boo ko yàlla dindi ba kooku neexut a contrôlé cheikh nag ba muy bañ xëy na du yegg ak ñoom waaye dana leen won bon léegi mu ne mu mu naxaa mu tere leen wa zajara tam jàjj leen wa charrata tamu dànk dàngal leen wa nafara tamu tasaare leen wa xadiba tamu mer xadiba shadidan mer mu màgg wa tawalla anhum shadidan wa kaanat taatihi lwufuudu li ziyarati wal axsi anhu wal ifaada fa kaana yamtaniu min dalik kull al imtina fuñ jaar rek mu bañ wa yaqulu kulluna waaxid fi l intifa ñun ñëpp a yem ci jëriñu fala fadla li ahadin ala al axar amul kenn ci ñun ku tane sa morom fii daawati mashaqati amul kenn koo xam ne ci ñun moo moo moo tane sa morom ci ak cëriñ man ak yéen kenn mënu cee jëriñ sa morom dara illa li illa suul ibtidaa lu mooy ñaaw ak bidaa rek yi ngeen nag falamma xaasa ba mu làqee nag xasaba sabqi drapeau ba fi kulli fadilatin ci bépp ngëneel foo ko lamb rek fekk moo tiim gaañi wa taxallaata mu takkaayoo zahiran ci li feeñ wa batinan ak ci li nëbbu bil xulalil jalila ci takkaay yu mag a mag a mag aljamila ci yeji aji raf way rafet walam yàpp te desut lawu ñeel ko min mutamannaahu ca lam doon mébét baynal anaami ci biir mbindee fi illa al xajju li baytillahi xaram lépp lu mu bëggoon rek yàlla may na ko ba mu des aj mag samat yëkkati ko himmatuhu itteem juréy ja ila talabihi jël ci sàkku aji mag dem mag nag wa tashmiri ak wogu wog sa tànk tubéy wa nahadat buur bi ci moom himmatu woo itteem juree jalil masiri ngir dox jëm makka nag fa axada radiallahu anhu fi taahubi warrahili wa xalafa alachaira walqabil mu ne mu pare nag pour nag bàyyi fi mbokk yëpp ak mbooloo yi jublu makka nag dem aji فما قر له إذ ذاك قرا إلى أن حج وزار boobu nag ànd ak ko sagoom amul fenn fu mun a toog toog gu ko neex arab bu ne maa qarra lahu qaraar rek mooy waaja amatul jàmm loolu ñu amatul jàmm mën suuta muñ am na fi mbokk moo xam ne xaw ma ko woon ci ne ma ngay wër mbalkama miinu ma ko ci ba ma tukki ñëw rek moo ñëw rek ne ma man daal soo xel ci yàlla rek la nekk ma ne ko yàlla mu ne xeleet di jooy ma ne ko ah yow si yàlla ji gaaw na bi ma ne ko dinaa ci xam dara man damay tukki te ñëw ba may laata tukki fekk naa mu sóobu bu yàgg may wax yu gën xam léegi moo ko bu fa tolloo lu mu doon doon ndaw ma xarala ko xaraa dootu mun a toog fenn fekk lam bugg a naan naanu ko wala lam bugg a lekk lekk ci maanaam aywa ilaan xaja wa zaar mu dem nag ba egg makka ba aj aj ak farataam dem ziyaare ji madina wa taraddada te mu dem ak ñëw bayna diyaar yi ci diggante kër yi foofee bàyyi doon ñu wax ca madina munawara alayhi ridwanullah buñ eggee rek dugg hôtel ba rek ma ngay muñ rek ma ngay waxtaan rek ma ngay jàngale rek ma ngay maye rek buñ cee nag ba lekk ba rek mu ne ah dëkk baa ngi noonu dama leen dama leen mbedd mu ngeen jaar rek xam ne yonent bi Mustafa jaar di ñu préparé nee nga de mu ne ilaan xaja wa zaar wa taraddada bayna diyaar wastalama te mu lu mel ni laal bayna al amaakini wal asaar lu baax lu mu gis rek laal ko lu ñu war a barkelu bu barkelu ca xam nga loolu jar naa wax ca kaw parce que dañuy dem ba am ndax suñuy weddi barkelu baa ngi wax ci suru la ko war ne xaalitil jaza ma tu jazam demal ba seet rek ku am lèpre nga dem rek jaxasoo ak moom rek di tëdd ko sol ay yére ak yooyu mu ne rek yow itam da nga am lèpre mu ne nga dugg ci parfumerie rek butéel toj fa bu la waaj mere woon it foog nga xeeñ kenn mënu ci dara waaw wastalama bayna al amakini wal athar ak jeexi dee lépp luñ fi bàyyi ñu di ko seetaan ngir démb athar la ko arab di wax léegi waaye athar mooy bépp jeexit rek xam nga majnunu layla dafa ne woon amuru ala diyaari diyaari layla uqabbilu dal jidaara wa dal jidaara wa ma xubbu diyaari shaxaf na qalbi walakin xubbu man fatana diyaar nee na bu duggee gàdd gi laylaa dëkkoon rek mur bu mu romb ci mbedd yi sax foonu ko mu ne waaye du mur yi ñoo ma soxlaal ñu dëkk ci mur yi ñoo ma soxlaal moo tax ni ko yàlla buy jaaree ay site ak i asaar asaar yi taxul mais ñëpp a nekk la mbaay mos na wax wax yoo xam ne xam naa dañ koo puus amul pexe mu wax ko genn ci ajal yi aj ajale cinquante cinquante yooyu nga mu ne ah wax naa leen ne leen sant nañ yàlla moo leen may pàkk yu gën yi waaye nag góor ñaa ngi fa ñun suñu danga ko dul waxante boo waxee loolu jar naa bàyyi xel la mu ne pàcc yu baax yi yéen a ko yore waaye nag góor ñe fi mu ne ñoo leen yore góor ñe mooy maanaam taalibe yi bëgg yàlla ba yàlla jëriñ leen moo xam góor lañ moo xam jigéen parce que xam nga ba ko Muhammad ba ko Cheikhaane laajee ndax mbóot mi naan maqaasid moom danañ ko jox jigéenam mu ne ko maqaasid daal duñ laaj xeet wiñ koy jox doo wax genre foofu danga naan charte yi lan la waaw mu ne kooka daal mooy koo xam ne dafa des gannaaw bu mu jeexee soobu yoonu yoonu ci bu dëgg bi moom ba kanam kooku moom la ñuy tuddee ki ñu war a jox maqaas moom la ñuy wax góor moo xam góor la moo xam jigéen moo tax bam bam ne ñoo amee góor ñi maanaam ñoo amee nit ñu jëriñ ci yàlla la bëggoon wax bi ñu ko nettalee pour ñu sax ca la pour ñu góorgóorlu parce que xéewal moom fa man gada labisan sawba naimi bila shukrin alayhi fa anhu llahu yanzau moom la waajo waxoon mu ne xéewal mbubb la moo xam ne ku ko sol nag di ngóobi yàlla mën na koo summi moom moo tax mu ne la in shakartum la azidannakum yàlla nee na waat naa ne bu ma mayee nga sant rek ma dolli la waat naa loolu itam wala in kafartum nag firiwul bu ngeen weddee yàlla non su ngeen weddee xéewal inna azabi li shadid maa mun a créer crise su ko weddi seet mu ne bon wata wasta wastalama e بين الأماكن والآثار فكان خروجه من مدينة تلمسان سنة ست وثمانين ومائة وألف بس بم جوجي نك نداي أجي نيجي نكون تلمسان بمو فاي جن بس بم دفاري أت موما موتولوك بي غداي أمي جنة أك أك تيمير ak juróom ñett fukk ak juróom benn mu daal di taxaw ne wa amma mujahadatuhu radiallahu anhu amma nag sonn ga mu daan sonn ngir yàlla maanaam alladina jahadu fii na la nahdiyanahum subulana yàlla waxoon képp koo xam ne ñoo la tax a sonn ñun yàlla ñi ngi ngir yegg fenn maa ngi am subul mooy plurielu sabil xam nga yow waaj bi nga koy wan mu yegg fenn xëy na peut-être benn yoon nga xam moom nga am yàlla nee na yoon yu bëri la am fu ma la ci jaar nga rek nga yegg subu la na man mos naa gis koo xam ne kii bunta fatxu dara gënu koo yéeme waaw ku ñëw dugg ci néeg bi bàyyi daal ci ibaadan mi ngi am xijaab yoo xam ne kenn du faqiihu la bu mag kaala gu mag ku am daraja ñëw ci bàyyi pour attaquer taalibe yi maj jóobi sa taalibe yii war bal nga fee jóg war nga leeral seen mbir wax leen ñu kii danañu nekk ci xaal yoo xam ne la ñuy wax kenn mënu koo dégg ndekki dafa am chance fekk na bàyyi ngi jolli nga xam ne yakaadu zaytuha yubi wala lam tamsusu naaru bàyyi na ko toogal toogal fadal fadal ijliso waa ji toog tawuñu ko si kar te gisaluñu ko jàngaluñu ko département bàyyi dafa commencé rek di ko laaj ci li mu doon wax muy tontu bàyyi di ko laaj muy tontu bàyyi di ko laaj muy tontu ba mu ne jëreet am fat ko fi mu toog ba mu waxee nag bàyyi na ko yow yaa ngi wax de mu ne maa ko wax xaw ma lu mu waxoon loolu ci li gën a yéemu ci li xew ni foofu nee na wa amma mujahadatuhu faalam annahu la xilaafa bayna a'immati al asri ne la wóor ne mboolem njiitu diine yi ci jamono jii ñuy waxee ñoom ñun booba wa man adrakahu ak ku jot na sidna cheikh ku ko mës a fekkee min xaali shabibati même bam nekkee xaleel kenn werantuwu ne annahu kaana min almustafayna min ibadillah même ba muy jeune ku ko jotoon te mën a gis rek xam nga ne kii ci jaam yàlla yi mu tànn la bokk wa mimman nasha fi taatillah bokk na ci ñi sosu ci topp yàlla wa mimman hudiya wa tubiya ila siratillah bokk na ci ñi nga xam ne da jubaleef na leen tànn leen bay soobu yoon wi jëm ci yàlla fa huwa radiallahu anhu min almujtahidina fi diini nee na sidna cheikh te yàlla na ko yàlla gërëm mi ngi bokk ci nit ñi sakkaayu am farlu ci diini wal xaaifina min rabbil alamina yàlla daf ko may mu teel a ragal yàlla te sax ca yàlla mooy rabbul alamina muxaafidan ala taqwa dafa ragal yàlla te sax nag ci xaalitu ragal yàlla mooy maanaam day ragal yàlla bu fi bu fi nekkee moom kenn ragal yàlla bu nekkee ak mbooloo xam nga ne am na waajoo xam ne weeru koor dafa teru mu ne taaf ñu ne taafeer mu ne mu ne giñ naa ne ci tukki laa koy jeexal ñu kooku naay wutu woor ndax musaafir du woor te ni mu ko waxee xamuñ ci ndax dana fayam déet kooku taqwaam nga xëy na am na nu ñu koy melalee mais kii nag dafa ne moom mu xaafidan ala taqwa xam nga mu xaafidu ci alquran xaafidu ala salawaati wa salaati wusta xaafada alayha mooy dafa saxoog moom fexe ba du ca génn xaafida nag mën ngaa mokkal fàtte xaafada alayha nag mooy daf ko daf ko wattu di ko surveiller taxaw ca bu baax a baax baax moo tax ma ne bii rek biti wala waraay ak sàmm te bàyyi noonu na gaañe na nañ sàmm dëgg dëgg dëgg nit du ci egg fekk bàyyiwul loo xam ne dara lu bon nekku ca ngir ragale egg rek ci lu bon donc bi gars yi warante cigarette xaram naag ndax tudd nañ ci alxuraan nag bàyyi na waa en tout cas moo xam naa ne koo ko bàyyi de moom koo ko bàyyi de moom la ko gën a bon moom da nga ko bàyyi xam naa waaye léegi wér na ne cigarette xaram na amul benn wér basilan mbir mu muy aji joxe majhudahu lam man yëpp fi dalika ci loolu ñu wax xaabidan mbir mu muy aji téye inaan al xawdi googu xuus amma la yaanihi ca lu amut solo yoonam nekku ca dalika mbir mu muy aji soobu asrafal masalik soobu waaye gën a sell illa annahu baadama shabba wa taraara gannaaw bu mu nag màggee wataraara sama looy looy wa tadaafa nuuru qalbihi leer ga woon ci xol ba multiplier multiplier yokku wa jaaw te dikkal ko nag al fatxul mubiin fatxu gu wér ga inna fatxnaa laka fatxan mubiinan ci la ci aju ci moom min rabbihi jógee ci boromam wartafaa te yëkkatiku maqaamaam wa qaadahu te wammat ko a tawfiqu tawfiqu yàlla rabbaani ngay ko jóg borom bi mu jëm fan ilal bax jëm ci gëstu ani sirril ilahi muy gëstu nag sirrul ilahi ak samadaani luy mbóotam mbóot mi askan yàlla askan ko samadaaniyatu lan la booba nag la commencé fastaxala bi mutalaati kutubil qawmi mu commencé nag di liir téere gaañi xawmu foo ko dégg ci téere bu mel nii mooy al arifuna billah mooy awliyaullah bokkut ak koo dégg mooy xutba mooy discours ci meeting naan gaañi waxuma gaañ yooyu gaañi na lutte bi continuer waxuma ñooñu mais ñooñu itam am nañu seen seen seen pays ne kii daf ne kutubul qawmi mooy kutubul aarifin wa kutubu awliyaillah wa bil inkibaabi alayha wa tadrij lil ulum nee na inkabba mooy nii ma def nga def ko ci téere dañ naan inkabba ibrahimu ala jawahiri maani comme ça tëgg ci rek di jàng mooy inkabba da nga dégg même sax kaas bi su daanoo daanu boo xam ne ci kaw la jógee ba dëpp dañ naan inkabbatil kaas loolu nag la def ci téere gaa yi dëkk ci rek moom la Saalum daan wax naan jàng ja ja ko rek di set di seta di ko jàng nag di ko jàngale wa tadris lil ulum di jàngale xam-xamu sharia wal ifada di jëriñ nit ñi ci yoonu yàlla biha xatta inqataa ila allahi mu mujj nag fa farewoo yàlla rek wa taqat himmatuhu billahi itteem jëm amoon moom itam rek dal di bëgg saaqa yatuuqu tawqan mooy saaqa yasuuqu shawqan bëgg na ko namm na ko fa rafada jami al alaayiqi lépp lu ko waroon a gàllankoor nag rek mu rafdu ko sànni ko bàyyi ko wa nabasa min waraihi anwaa al awaiqi mu ne mu sànni ca gannaawam bépp xeetu tënk bu ko naayo tënk war a nekk obstacle bu ko fakkatal walis fam jëm fa zaadahu te dolli ko loolu mu def daalika loolu nuuran ala nuur noonu mu koo jëfandikoo nag tax leeram di yokk rek leeram di yokk rek leer foog ñu wax ci ab baax parce que leer physique am na te am na itam ci tasawuf leer jon ngay gis leer leer yi ngi leer comme lamp am na ci nubuwatu am na ci wilaayatu waaye sax léeg-léeg danañ wax leer te duñ ko ci jublu xam nga am na ñaari saxaaba yu jógee ci jotaay yonent bi ci guddi waxta nit na xam nga ne boobu amul électricité amul lampe tempête ñu ñu dem ba ba ba dugg ci yoonu lëndëm bi rek yet wuñu amee woon ne tàyyi rek di leer ñuy gis rek ñuy gis rek ba egg fi ñu war a tàggoona kii kër ma ngi jëm ndeyjoor kii kër a jëm càmmoñ ñu xajoo ñu séddoo yet wa bii di tàkk bii di tàkk ñu dem ba ñu egg ñu xëy na suñu yonent waaye loolu ba tey leeru physique gu am baatin la mais nag leer dëgg-dëgg fa gaaña dañu wax ne leer mooy égal am lëndëm mooy égal ñàkk moo tax buñ jàngee allahu nuuru samawaati wal ardi rek nekk ci lu rëy wartafa wa qaabon wa inkibaab wa alayha wa tadris li ulum wal ifadati biha xata inqataa ila allahi wa taqat himmatuhu billahi fa rafada jamia al alaayiqi wa nabaza min waraihi anwa al awaiqi fa zaadahu dalika nuuran ala nuur bàyyi ne yàlla ne yahdi llahu li nuurihi man yashaa wartaqaate mu yéeg bi shuhuudi li shuhuudi yi ngir janoo ga mu janoo fu mu yéeg martabata arbaabi sudur martaba bi borom xol yàlla ubbi yi daal yéeg mu yéeg ca faqad ata radiallahu anhu al buyuta min abwaabiha mu ne seydna cheikh jaarul ci fenêtre jaarul ci pot ba ci boo boot ci saket nga bokk porox ah porox ndaw am na beneen kii de pot pot waaw daf ne atal buyuta min abwaabiha ba yàlla wax inna allaha yaamurukum an la wax ne wa atul buyuta min abwaabiha maanaam jaar leen ci bunt bi mu ne Seydina Cheikh ci bunt bi la jaar wa axada tariqa an arbaabiha lépp mbootu yoonu jëm ci yàlla ci seen borom ña ko moom la ko jëlee moo sax am na élimaan bu nekkoon Paris ci Hamza bu Bëkkër am na sax ci tafsiru quraan français yu baax yu mu signé mais am na njumte bu mag bu mu jum ci ab téeréem nee na suuf yi dafay am sëriñ Cheikh man teen amul sëriñ ma ne ko déet am na sëriñ yu bëri dafa yëg gannaaw ba ñi ko jàngaloon alif bata raw na leen ñi ko jàngaloon fiq raw na leen ñi ko soogoon yoonu yàlla raw na leen waaye wanewul ne amul sëriñ am na sëriñ de moo ko wax ci ab téere dan waaye bu bëgg lu ñett yi ñàkk fayda moo ma ko woon ma ne ko lii daal mënoo fexe ba ma discuter ci ndax man xam naa ay sëriñam xam naa ñooñee seen i sëriñ moom xam naa ay taalibeem ñooñee xam naa seen i taalibeem silsila la boo xam ne amul benn benn maillon bu am lënd parce que yow mu soo ittiwoo lii ndëkk nga doon jàng xaw fo ci toll am na ñu mun ونبذ من وراء أنواع العوائق فمراد فزاده ذلك نورا على نور وارتقى بشهوده مرتبة أرباب الصدور فقد أتى رضي الله عنه البيوت من أبوابها وأخذ الطريق عن أربابها من فاستوجب بذلك لول نك انديلكو الوراثة اللونولا والإمامة أنجيب يلا fa lam yataqaddam fi asrihi ahadun amaamahu ci jamonoom amul kenn ku ko faree kanam daf naan gaa yi ñëw leen ñu dem mais waxul kenn xaar ma ñu dem loolu mu ne moom daal kama qiila comme nañu waxoon mu di ko paraphraser ne fa asbaha ayna alwaqti walqawlu qawluhu wala ahadun fi nnaasi yablugu qadrahu mu ne mi ngi mel ni kawaaji doon wax seex a ci gën a yeey ne fa asbaha te mu mujj ayna alwaqti di kilifa jamonoom walqawlu wax junjul teppi qawluhu mooy waxam wala ahadun kenn nag fi naas yi ci nit ñi booba yablugu qadrahu dana yegg ci darajay sidna cheikh mu ne axada radiallahu anhu fi ljiddi wa tachmir booba la encore continuer ci jiddi fadlu ak tachmir ak sakkaayu wal i'tizaali ak beru an il xalqi walis mbindeef yi ku dul dimbale ci lim nekk koo dégg ci nit yàlla ñu ne beru na rek maanaam beru na ñem war sa àndal xam nga bàyyi wax na benn béy ci ma xaatir ca waxtaan ca ak ay nit dafa ne alhamdulillahi nachatu tahira maa qultu faxran bal nataqtu shakira nee na maa qattu jaalastu safihan wala ma asab siwa fuxuuri qawmin ulama bàyyi maa ngi sant yàlla dama nosu rek dama sosu rek laab musuma tilim ci baatin mu ne lii waxuma ko faxran ngir tiitaru dama ko wax shakiran ngir mooy aji sant yàlla ci li mu may mu ne musuma toog ak nit ku safihu ku ñàkk fayda mukk te boo xoolee léegi nga gis pegg baay ku ñàkk fayda ci wér te li bàyyi xëy dëgg man nag ma jëmale sama xaatar ci ne maaqatu jaala su la wax waxul maaqatu jaala sa nii dafa ne moom ma sa toogaale safihu waxul ne safihu ma sa toogaale ak moom ah bu safihu ñëwee ci bàyyi kay bëgg xaalis mbaa bëgg a yokk xam-xam soo koy moom ay bàyyi dafa ne moom tànnul toogaale kenn lu may gaaña rek te loolu imaam Malik moo ko njëkkoon wax ci liñ xam ibnu Anas radiallahu anhu Malik ibnu Anas ba tey ñu nekk ci ngërëm ñëpp war nañ koo gën a jàngaat ndax ba tey gi gaa ñi nanguñ ne moo waxoon ne man tafaqaha walam yatasawaf faqad tafattaqa wa man tasawafa walam yatafaqa faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa Malik ibn Anas booba nga xam ne ba fi saabay jóge moo fa sës moo ne woon ku jàng fiq te nekkoo sufiyanke yaa ngi naj naj rek waaye faasix na ndax mun nga dugg ci lu yàq diine te doo ko xam mu ne ku def tasawuf te xamoo fiq da ngay sa fas-fas day yàqu mu ne ku leen boole nag tafaqaha wa tasawafa kooku taxaqaqa am na xaqiqatu ci yàlla ba indi na ko ci téeréem yi dund na ko ci dundam bi yar na ci nit ñu bare bare te ba léegi am na yoo xam ne loolu yeggaguñ ci xam ne Maalik a leen jàngal loolu ni mu leen jàngale fiqhul islam yi ndax Maalik boo ko seetloo sax moom zoq yi mu amoon da nga xam ne kooku ay aarifu ne ñoo ko moom Medina dafa sol daal day téye daalam ba génn xuru xuru Medina doo koo sol mu ne mu ne suuf siñ fakk gas ko dugal jëm yoonam ca biir du ci dëgg tànk mukk donc donc demoon na nag ba jëmmi jamono li mu fonk fonk masjid ba mu daan jàngale mu jigi dootu fa julli mu ngi ko laajee mu ne ku ne mënoo loo wax sa ngam fekkite yoo ba ko buur ba dóor yi dóor yu métti ya daf caa jëlee woon presque mënul toog sa daan waaye du génn ci moom ku baax kooku ku mag kooku parce que moom dafa def fatwa ne kuñ fase kuñ forcé pour nga fase sa jabar fase ba baaxul ah ñoom nañu déggee ci ne kuy forcé pour nga jaayante buur taxut buur ba nguuram nga wala amul mu ne kenn forcé ñu ñu ñu ñu ñu ñu teg ko ci daab ba muy wër marché yi pour mu weddi boppam mu ne ku ma xam maay ka nga xam ku ma xamul maay Malik ibnu Anas maa ne kuñ forcé ci nga fas sa jabar fase ma baaxul ñu dóor ko dóor dóor ba mënatu nekk ci jàkk dóor ko dóor ba la koy waroon a xab doo mënatu ba xab du mu di ko yor ñu gëstu yu xóotu ñu ne Malik daf daan yor déedéet dafa mujjoon di yor ngir ñàkk tax waaw axada fi ljiddi wa tachmiri wal ictizaali an ilxalqi maanaam beru ñi nga xam ne ànd ñoo moom ci fam jëm wal firaari minhum daw leen ñoom nit ñi ànd sa moom ci fam jëm wastaxala tam soxlawoo bi maa yaxussuhu min xuquqi rabbihi li nga xam ne moom moom kenn la war warul keneen ci xaqi boromam yépp mu di ko jox wa ma huwa mutalabun bihi min attaqwa li nga xam ne moom dañ ko koy laaj ne lii yow la war ci ragal yàlla wala war a ay ak sàmm moom itam mu nekk wa kaana annaasu yaakunahu fi baad al axyaani li ziyaara ñu bëri dañ daan ñëw yenn temps yi di ko ziyaara si falaa yajiduuna fihi muttasaan waaye danañ fa toog toog mu ci dem du am jotu fay leen seen nuyoo nangu seen ziyaara dañuy toog ba mu yàgg rek ñu dem lu tax mu ne li kasrati ma kaana fihi min al qabdi ngir bëri lam nekkoon ci xol bu jàpp xol bu jàpp allahu yaqbidu wa yaskutu ilayhi turjaun ñaari xaal la ci kuy dox jëm ci yàlla xaw foog rajaaw qabdul bas bàyyi na suñ lañu ko ci tukkee mu rëy ma ci Conakry waaw yaqbiduni rabbi wa insha yabtusuni rabbi wa insha qabat fanaan fenn reerul nelawul mu ne ma téema ñibbi Medina yàlla delloo ma Medina yàlla xaru ko dellu Medina te nelawut te lekkut te mënut a wàññeeku waaw mu ne lam adri mujiba siyaxati lati qaharani mawla laha wa illati qad bariat qabla bulugi lxilm mu ne man lii jaaxal na man yëfi naqari na maa ngi bëgg a ñibbi mu ne maa ñibbi yàlla not na ma xaw ma lu mu ci jublu te man li taxaan nit ñi tukki pour mu wér dafa wér ci man ba may laata mat góor wa fuxtu fi irfaani kull al qawmi boobee laa yëg ne al qawmu ñi ñuy lim ci sama jamono maa leen gën a xam yàlla wa fuxtu fi irfaani kull al qawmi ñi ne kull qawmi c'est la même chose nag mu ne kon nag xabdu bastu léeg-léeg mu xabdu mu ne dellu si naa wal xabdu aadali hunaka ayda xabdu ba jowaat fekkaat ma fa mu ne yaa rabbi yaa rahman zidna fayda waaye nag bu ma xabdu bastu yëpp yokkal ma fayda bi rek yokkal ma fayda bi rek na bëbb rek kon nag mu ne li ma li kasrati ma kaana fii min alqabd wa ida jaahu nem dikkal na ko ahadun li yuqabbila yadayhi su kenn ñëwee pour fóon loxoy seen naa cheikh yi yaxdabu mu mer wa yaabaatam bañ dalika loolu wa kaana radiallahu anhu yakrahu kasrata alkalaam nee na seen naa cheikh dafa siboon ku bëri wax bëggul wax ju bëri shadid taxafudi min alxiibati ku munoon a moytani ku jëw la wa namimati ak rambaaj xalaatuñ ko moom waaye ñuy rambaaj ci kanamam ak a jëw ci kanamam loolu daf daan moytanu ko mus naa gis bés boo xam ne dafa am ku ñëw ci bàyyi fekk benn gan ñoo fi jógee lub naan ku am daraja ñëpp di xëccoo sedd teral teral ko ba libaane yi nekkul julli sax di ko xëccoo julli ni muy Moussa Sabr gan ñëw na yendu bàyyi tout ça jiitu na fa takusaan bàyyi fekkee ci conférence am ca kawoon jox na ma sax benn médaille moom Moussa Sadr moom bi ma introduire yëf yi ba pare dafa jóg taxaw ne yaa Ibrahim qad asaabta man baadak Ibrahim ku ñëw su gannaaw sonal nga ko ma moom boppam la jur rek maanaam wax nga ma ñëw wax naar yi def ko ñoom loo xam ne ku ma dajee mënul si Moussa nee na ma ne ko moom rek la engagé engagé moom dégg nga benn waaye nag ñëw ñaari gànnaar ñoo ci bàyyi ne ko da ngeen feewoon gan ak chia maa ne ko dégg waaw amul chia bu ñëw fan yi bàyyi ne ko xaw ah ku fi ñëwoon nag mu ne ko jullit bu nekk gan di borom xam-xam bokk ci àll bay ci moo fi ñëwoon ne pat na këj waa ji toog toog bàyyi waxal ak moom dara mu rocce ko def maanaam dañuy wax ne kuy jëw looloo ci baax bàyyi nee nañu Xasan Basri defe naa ko benn waaye dafa ñëw ne ko diw li mu la wax tey mu ne ko diw mu ne ko waaw foo ko gisee mu ne ko këram ah dem nga ba këram mu ne ko waaw loo fa doon mu daf ma invité woon mu ne daf la sax invité mu ne waaw loo fa lekk mu ne ko juróom-ñaari palaat tegale na ko mu ne ko waaw mu ne ko yaa bon sa biir bu rëy bii juróom-ñaari palaat xaj benn baat boo dégg rek mënoo koo muñ ba ñëw di ma ko wax yàqal nga ma sa bopp yàqal nga ma sama xarit jógal ci biti bàyyi na loolu rek baax ci kuy kuy jëw ak rambaay def na ko waa ji mooy booloo ci wax daf ko ne ki ngay wax xaw ma ko man dayfun muslimun aalimun min ali bayti rasulillahi la amee wax ne këcc nag xam nga bàyyi moom boo koy ñemee mooy su su beekoo mu ne pëtt noonu am na ci ñun koo xam ne mu ko dund ndax lay kilifa la dafa ne ceeb ci buntu kër gi noonu rek fekk bàyyi taxaw ci buntam mu xool ko bàyyi xool ko mu xool ko bàyyi xool ko mu di wëkk bàyyi na jàppale na ñu dàq ko ba sàmm di mel ni ko looy daw وكان الناس يأتونه في بعض الأحيان للزيارة فلا يجدون فيه متسعا لكثرة ما كان فيه من القبض وإذا جاءه أحد ليقبل يديه يغضب ويأبى ذلك وكان رضي الله عنه يكره كثرة الكلام شديد التحفظ من الغيبة والنميمة والخوض ak xuus fi ma la yaani ci loo xam ne amul solo xam nga yonent wax na ne bokk na ci ju imaan gu mat ci jullit mooy tarkuhu ma la yaani lu sa yoon nekkul sa yoon nekkul wa ma mujahadatu fi siyaam am na jihaad bu muy def itam ci koor kooru gàtt nga fa kaana yasuumu fi ibtidaai amrihi wa yasrudu siyaama al ayaam al mutasawilatu ladi nee na bi muy tàmbali nekk xale lu góor bokk na ci liñ ko xàmmee woon ci biir nit ñi dafa bëri lu muy oor ooru gàtt nga fan yooyu yàgg yàgg yàgg mu teg lay woor wa ama qiyaamu leyli fa huwa muwaadimun alayhi sinina alkasirata wala zaala ila al aan mu ne nag naafila guddi moom nee na moom la saxoo moom la saxoo ba bés bii may bind lii may bind ci loolu la nekk naafila naafila rek gaa yi yu ay azwaaq yu bëri lañ ci am mais am na koo xam ne doon góor gu baax ci Jazaayir mu ne man dama dama jóg ci njël teel a dem jàkk ja ci njëla njëla njël mu ne du may dem ma romb benn jardin public gis fa benn tubaab ci mu amir yi ne nekkoon Algérie kàccarooyee xajam bu mu fonk te bañ nit nit ñi soxlaal ko walis foog xaj ba moom la génn ci guddi googa yóbbu ko foofa di foog xaj ba mu ne waaye ndem xajay foog xaj bëgg wéet ba kenn du ko yàqal waaye guddi gi de say nañ ko jëriñoo ngir yàlla ñu nitum dal di ëllëg tamit bind ci benn benn maqaal ci minbaru waaz wal irshad ci jërida su basaay maa ngi ko denc bëri lu yéeme la kon nag mu ne daf daan woor di tegalee fan yi naafila moom ci la nekk nga xam ne koor ga kon wàññi na ko mais naafila moom du ko bàyyi ñu ne am na benn saalixu boo xam ne day julli léeg-léeg mu nelaw jabar ji nag moom xaw ma daal ci suluku li nekk xaw ma mais day fanaan naafila rek ba moom muy nelaw su yeewoo fekk ndaw saan na allahu akbar asalaamaaleykum rek mu yërëm ko nag ndeysaan ne ko ala tanaamina ya amatallah ay waay jaamu yàlla bu jigéen bi doon doon doon nelaw nag ndaw si daal di ba mu sëlmale mu ne ko wa kayfa yanaamu man alima anna habibahu la yanaam moom yàlla la bëgg mu ne naka la soppee ñàkk nelaw yow ngay nelaw mu ne moom la saxoo walam takun lahu raxatun illa fiihi nee na noflaay cheikh amu ko lu mooy bu nekkee ci naafila guddi taraw guddi fawa mustaraaxul aabidin ndax mu ne naafila guddi mooy noppalukaayu jaamukatu yàlla yi id fiihi yajiduuna qulubahum min altalazuzi bil munaajaati wa isbaali alabarat fii mihraabi tilawaat nee na jaam yàlla yu baax yi bu ñuy naafila guddi foofu la seen noflaay nekk ndax seen xol ci lay amee bànneex bëgg ci déyante gi ñu deyaay ak yàlla ak di tuur seeni rongoñ fekk ñi ngi jàng alquran ci mihraabul ibaada wa huwa ya'lamu wa yatahaqqaqu radiyallahu anhu anna awqaatahu umruhu wa umruhu ra'su maalihi wa alayhi tijaaratuhu wa bihi yasiru ila na'iimil abad nee na nag li tax si naa cheikh sax ci naafila yooyu koor yooyu ak mbaax googu nee na ndax moom dafa xam xam-xam bu wóor ne ay waxtoom mooy ab dundam te ab dundam mooy capitalu alalam te dafa war a fructifier capital boobu ndax ca lay mujj eggee ci xéwal ak dappet waaye du ko bàyyi mu baax xam nga foofu déjà leçon la même leçon commerciale capital commerçant moomu ko islaafi naar bu fi nekkoon fii ay at gaa ñi nekk fi mu ne ci pompier CCS boobu ak fële CC nangam yooyu yëpp CCIS seen bàyyi ba mu ñibbi def na leen yéen a dugg école yéen a jàng commerce man nit laa koo xam ne damaa bëri ba egg fii ma egg ak liggéey dama liggéey mais maa ngi leen di dénk ndénkaale yoo xam ne bu ngeen ko fàttewul ay baat dong la société bi du daanu mukk insha allah mu ne jàpp leen capital bi moomu leen ko bu leen ko laal bénéfice moomu leen lépp foog na ngeen réinvestir wasalaamualeykum ñibbi ñibbi wéru ah ñu ngi sant yàlla moom gaa ñooyu waaye mu ne Seydina Cheikh moom ci xaqiqa xam na ne fana waxtoom yi ñooy dundam bi dundam bi mooy capitalu alalam daf ko war a fructifier ba egg ci naimul abad mu ne wa yara anfasahu jawahira la qimata laha baat bu naqare firi la nag mu ne mu gis ne nokki yi muy nokki ay wurus la yu foor yoo xam ne bu ne la qimata laha da ngay foog ne amul qiima amul solo déet amul qiima bu tolloog moom amul la qimata yuawadu aw aw aw tuawadu biha xam nga ñoom lu leen neex rek parce que ñoo am ndigal fa shaxa biha mu ne moo tax mu nay ci ci nokkeen yi an tamdiya fi gayri ma xuliqat lahu di nokki rek suba ngoon sa nokk yi du nekk ci li tax yàlla bind ko fa caxala bi mubadarati as sibaqa sibaq mu ne nag mu soxlawoo rek di jël ay initiative yu baax rek di gaawante wa baadiru bil amali salihati qabla an tushgalu yonent nee na da ngay gaaw def lu baax bala ngaa ñàkk jot mu ne na nga yàkkamti balaa ngaa ñàkk jot nga def la nga war a def yàkkamti bi nga wéree bala ngaa bala ngaa feebar di ko tëlee def yàkkamti bi ngay dund bala ngaa dee di ko tëlee def waaw course la mu ne moo tax mu ne assibaaqa sibaax ca kanam ca kanam qawlan wa fi'lan daf ko daan wax daf ko daan jëf xadara nafsi xasrata almasbuqi ndax daf doon xadira nafsi xasrata almasbuqi daf daan koo xam ne bakkanam daf daan moytandiku tos ka rek ku ñu raw ak mëq pënd ku ñu jiitu dal ko waaw loolu daf koy ñu ku ne war nga ko bàyyi xel wastidaamatu taat daf daan xalaat itam di saxoo saxoog topp yàlla wa baslal majhudi ak joxe kattan la mën fiiha ndax bàyyi ba ko waa ji laajee luy sa philosophie ca Makka mu ne mooy lu ma war rek ma def ci la ma mën yëpp ngir ngir ngir réaliser ko waaye waaye nag li ci des yëpp yàlla ko bàyyee baslu aqsal jahdi bi taxqiqi muraad maal ittikaali ala allahi fi nataij laa yasduru illa mimman uqima fi shuhudi baariha wa munshiha nee na nag taxaw di njëkklante bañ ku la raw saxoo topp yàlla di def la nga mën yëpp ci ci googu soobu nee na laa yasduru du gongee ko illa mimman uqima lu may jógee ci koo xam ne taxawaleef na ko fi shuhudi baariha ci seetu boromam mi ko bind wa munshiha ak aji soxam maanaam ki bind yooyu yëpp sos ko moom ku koy seetu mën nga cee sax te doo ko yëg falladina stafahum allahu li xidmatihi ñi yàlla tànn ngir ñu liggéeyal ko wa nawara bawatinahum bi anwaari maarifatihi mu leeral seeni baatin ca leer ak xamam nga moom yàlla xawiyat dëgër na xulubum ay xol seen wa baadaroo tañu gaawantu qabla al fawti balaa mbir mee faat wa saarau ila ma nadabahum ilayhi ñu gaaw lool jëm ci lam leen invité nañ ko def kan sayidum seen fan fa hum ñoom mulaazimuuna way saxoo lañ lañ leen sant mustaslimuuna way jébbalu lañ duñu werante yusabbixuuna layla wa nahaar la yafturuun ña nga mel ne malaaka ya guddi ña ngay sabal bëccëg ña ngay sabal duñ tayal duñu arrêté laysa lahum fadluhu fi ma umiru bihi alimu annahum bi maran min sayidihim fa shaddu lxayaazim washtagaluu bima huwa laazim ñoom duñ arrêté ci tudd yàlla ak sabal ko lañ def gis nga laysa lahum fadla maanaam amuñ dara luñ cay desal ndesit amu ci lépp lu ñuy jël te lañ leen digal xam nañ ne yàllaa ngi janoog ñoom moo tax ñu takk seeni seeni seeni seeni ceinture wastaxalu te ñu soxloo bi ma huwa lazim te la leen war wa aqul moom Aliou Harazim bi waaw ajat na ñu ma ci xam alhamdulillah xam nga au fur et à mesure foog ñuy fàttali xéwal yi ndaxte xam nga ñu bëri taalif nañu ay téere ci ay kilifa yuñ gisul dégguñ ko jàng rek méthode ci jàng histoire ba tënkee fii génne ci lu nit ñi mën a jëriñoo mais koo xam ne am na ci biir téere bi yoo xam ne daf naan ñu ànd si nangam ñu def nangam ki ñu teewee nangam maanaam ki nga xam ne shaahidu iyaan la di bind ci koo xam ne sañu koo sosal bind ci sangam ak nawleen ci yàlla kooku xam nga mooy bokk na ci spécificité téere bi si daal di xalaasim rafiqu Seydi Ahmad Tijaani ba moo ko bàyyi ci àddina moo tax mu mu mu te bàyyi xel loolu la mi bëgg nga génn li nga bind ci bàyyi bon incha allah ñaan la leen rek wa aqulu moom nag moo ne si daal di xalaasim moo ne wa aqulu إنه رضي الله عنه من الذين كانت عندهم كل الليالي ليلة القدر لأن سيدنا الشيخ نيجي بوكو شي غور يالا نيجي خم يالا ماينا لين ليلة القدر بن غودي لا سي ادني مي نيوم سين غودي ييب ليلة القدر amna amna waaju baax ndeysaan waa Suria bu ku doon jàng nekk professeur enseignement supérieur nekk ku mun a woy te woy yu bëri ci yàlla la koo def ak yonent bi mi ngi doon wax benn bay si di wax ne alladi fi qalbihi llahu fa anna asha makka nee na ku yàlla nekk sa xol dëkk boo nekk rek makka la fekk ba ngay demee makka waaye nee na sidna cheikh guddeem yépp layatul qadar la id huwa radiallahu anhu min alqaimina bi xududillah li ko ko may nag ci liñ ci